Sénégal web c'est le Sénégal dans la web jox leen xibaar yu wér te wóor ci anam yu gaaw ñu seet ko seetaanal ko Sénégal web c'est le Sénégal dans le web. Ousmane Sonko di addu ci jàppug paap Alé Niang di xam ne yéen naataango yi lii lañu ñu mujjoo wax ne xëy na moom la ñuy toppee saabalkat bii di Pape Alé Niang ba ci njëkk di fésal way na réew police wu ñu defoon ca ba ñuy déglu genn kilifa politique te mu jëmoon ci matukaay yu ñu jëloon ngir ñeel wàllu kaaraange ñaareel ba mu wayndare wu soxol sappoor yi ñetteel ba yore wayndare weer sàcc te doon les doon nëbbu pap Alé Niang xamle na ne ci lënd gi la gisé way ndare police woowu ñuy wax nit ñëpp te la siwal way ndero sapor yi ginna waxtaan wu yàgg nguur gi mujj nañoo bayyi li waraloon dëgg ñu tek ko loxo lu ñu gi ngi gendarmerie gi ne fang côté kat yi ci cham gi liko waral nak moy xam nañu bu baax ñi ci laalé tax ñu ragala léralal way ndare wi yaq ngeen ko way ndare wi mi ngi bu baax fa mu wara nekk du doon wenen nagu sarax wi ci njombay kàmb gi ak seen yéene ci tëj gémmiñu képp ku àndul ak ñoom maa ngi koy fesal sama njàppale ndax woolu gi ko police woolu ci ndigalu toppikatub Macky sàll bi teguwul ci yoon bàyyi leen ko te ngeen leer lal saa Sénégal yi njëndum gànnaay yi ak seen jëflante yu leerul seen diggante ak njabootut perte Sénégal web c'est le Sénégal dans xibaar yu wér te wóor yu gaaw ñu Sénégal web c'est le Sénégal dans le web